الحمد لله الذي الحمد لله ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV da ngeen di bés fii nga xam ne moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi mooy chaîne bi nga xam ne moo leen jàngal seen diine di ci mbirum àdduna ak ko jërëjëf oustaz ci wàllu actualité euh, ñi ngi fàttaliku ci ay bis gi Euh, wala ay bis gii ñu nekk sax nag ba ci àjjuma ji téeméeri fan bi fi Serigne Touba bàyyi ko ak téeméeri at laa bëgg a wax hmm. <laughs> téeméeri fan kat daa tiitul <laughs> fan yi jumaa yee tax lu waaye wax ne téeméeri fan ah waaye téeméeri at laa bëgg a wax hmm. téeméeri at cent 1927 ak tey bi fi Seexul Xaddim euh, dëkkaale jeeg boroomam jóge njaarim ñu yóbbu ko Touba boobaak léegi euh, mat na téeméeri at mooy màggal gu njëkk gi tax lañ koy wax di ñaar fukki fan ci weeru tamxarit yan jàngal nga ñu ciy defal xanaa soññaat sunu bopp ci jàngaat liggéey bi sëñ Mbàkke ku am téeméeri at hmm. ñu fi jóge léegi te buñ la tuddee mel ni démb ci ngoon yaa fi allahu akbar <laughs> ah hmm. seeta lool hmm. téeméeri at benn siècle te bu ñu tuddee saw tur mu mel ne yaa fi mu mel ni yaa fi loolu loolu lañ ci mën a jànge jànge ci manhajiya bi mu doon jàngalee jànge ci orientation bi mu doon joxe jàngal ci euh, tëralin li mu doon tëral bi muy sañc dëkkam bee di Tuuba ah laka daaru salaami rabbi wa Tuuba mm-hmm. li yakun rabbi bi ima saawu dooni wallaay ndeysaan su ma fa dëkkee maasikan bil kitaabi wallaay maska dariri maska dariri bi yadil qaayidi al bashir al muini oh ndeysaan <laughs> eh? ah dégg nga mhm. donc yooyu xam naa danañ ko jàngat ca bis ba mhm. waaye ñun yooyu war nañ ko jàngat mhm. wax ne ker bam ne eh, ijal rujuu'i ila qawmi saadatana wallaay ndeysaan wallaay dama bëgg sama siriti bi muy texe ak àdduna ak texe ak képp ku fekk ci dëkk ba ku ma fa fekkut ak ka fay ñëw sama ginnaaw. ndeysaan. wal tag fi naa yow ma jamil xalqi niiraana. macha allah nu yow suñuy njoowaan jaaxaan. dëgg la dëgg commencé njoowaan. ah li jaaxtaan. <laughs> la yow. <laughs> loolu. njàngat mhm. mu réy la ci ñun. dëgg la te alxuraan moo ne waskur waskurul fil kitaab bi diw. Mhm. ndax def na fi nangam ak mhm. bi diw ndax def na fi nangam ak nangam. ba ci waskurul fil kitaab Mariam. donc loolu. dëgg yàlla am jàngat lu mu rëy mu yaatu te xóot moo xam ne ñun ñëpp war nañ koo jàng la ca teg mooy dafa mas di ñaan suñu mm-hmm. ko gaa yi ñoo lay tooñ mm-hmm. waaye kilifa gaa yi mi xam mu la oh, ñoom dañoo xamul rek ndeysaan ah booba mi ngi peledel nit ñi waaw waaw nekk avocat xam nga yonent bi dafa ñëw euh, fële Taïf euh, waaw ñu sànni koy xeer. Mm-hmm. suñu borom ne mu ne jibril jibril mu ne mm. mu ne kaay dem. waaw intervention jottate na. dëgg la. intervention jot na. na ma defoon banu Israël suuxal leen ca ndox ma. wallaay laay def ñi dóor xeer yi seen kaw. wallaay yàlla bëggul ku laal waaye. waaw. Mm-hmm. yonent bi sol mbax sol mbubbam. Mm-hmm. avocat. ne ko allahumma. Mm. ixfir li xaw mi li xaw mi. de. Oh. te kat ñoom xoolal li ko def oustaz ba pare mu jëlaat leen tafaat leen ci boppam ixfir li xaw mi malgré dañ koo weddi dañ koo contre dañ koo saboote dañ koo dóori xeer mu war leen a mere war leen a jéppi mu wax li xaw mi ixfir li xaw mi xaw mi mooy lan mooy sama sama mbokk yii nga xam ne aw ma ñu dul ñoom te ñoom laa mbokk sama bàjje da ngi fii ci dëkk bi isan sama bàjje ngi fii ci dëkk bi mhm. fa innahum laa yaalamuun laa yaalamuun gis nga baatu laa yaalamuun mhm. mooy man mi jàngale mhm. su ma jàngalee ni ma war a jàngale mhm. bu fekkee daa am lu ci ma defee ne mhm. laa yaalamuun yaalamuun ak laa yaalamuun waaw yaalamuun ak laa yaalamuun léegi sëriñ bi ne borom fa innahum mm. wa in azawka yaa ahad mm. li xaflatin lam yusriku bika ahad oh. allahu akbar waaw mais sax xoolal foofu doo dongante gi li xaf la loolu waaw waaw naam fa innahum <laughs> ndeysaan oh, loolu fa innahum waaw wa in asawka yaa ahad li xaflatin mhm. lam yusriku bika lam yusriku bika ahad waaw duñ la bokkaale kenn dëgg la de lii nuru bokkaale ah ak càggante rek la ndeysaan waaye xulubuhum laysa tamilu abada ila siwaaka min huna <laughs> ila xada <laughs> plaidel ñu ndeysaan ah <laughs> làqunu ci ginnaawam ne suñu borom ñoo ngi nii xool xoolal ci man wallaay wallaay <laughs> ci waxin ah. kooku li ñu bëgg a fàttaliku mhm, mhm. ak jàngaat wallaay téeméeri atam yi dëgg la yàlla jàngati weesu amiin yaa rabbal alamin alhamdulillahi alladi alhamdulillahi alladi aghnani wa a'azzani bi tila yéen ñi bëgg di jot waxtaan yi ak vidéo yi nga xam ne mooy am ci Ali Imran TV di bés fii nga xam ni moom lañ bind sabone ba noppi bañ a fàtte laal kolos bi Ali Imran mooy seen bi nga xam ne moo leen di jàngal seen diine jëleen yee ci mbirum àdduna